waaw mooy yoon xanaa boo xamante ni macha allah xam ne incha allah. waaw uh-huh. ko tey dal bëre ko xel mu dal incha uh-huh. waaw. mais tey mbër nga boo xamante ni yàgg nga am bis bu ne si làmb tey le 6 novembre incha allah rabbi diggante Papa Sow ak xamante ni moom mooy tey booy wax si ñaari ñaari mbër yooyu lan nga di wax ak loo leen di conseillé si làmb jooju. non làmb jooju moom ñoom mun naa ne ñëw bëre si rek la xaar si ñoom. mais kenn ku si nekk li nga waroon def defoon nga ko bis bi passé. waaw ñëw bëri si xam nga jël dem fenn loolu la ñuy xaar si ñoom. Ah, ah. yee waaw noonu la demee. boo xam Papa Sow ak bu ñu ñu rukk ndaje loo gis. waaw mais lamb la Papa Sow moom daanaan la ci bépp côté. Ah, mais Siteu moom la kenn mënul nat yàlla yàlla defal leen jàmm rek incha allah waaw. Papa su mu nekk. maa ngi waajal. waaw maa ngi waajal bu baax. am nga combat wala amagoo combat. am naa combat waaw. waaw yow kan la Baye Nandi Fall Baye waaw suñu borom parce que lépp lu war si laam dama ko def. waaw suñu borom moo nama gura bu namee rek ma gàtt incha allah. waaw loo yóbbante naan loo koy yóbbante. waaw sant rek moom nag préparé rek mu waaj. incha allah ñun ñuy waaj bu baax. dëgg la waaw ñun ñuy waaj ay xale lañ dañuy waaj rek. dëgg la waaw incha allah lépp lu ko jaral rek ñun jaral nañu loolu. dëgg la yàlla ñu yàlla suturaal nag maa ñu ndam si combat wu incha allah. jaajëf waaw est-ce que xam nga bëgg naa si yow. waaw sant taw fee rek maa la gën a bëgg bu baax barke yàlla am nañ jàmm baax ah. jaajëf waay